ñett yi suivre univers info ñu ngi leen di nuyu di leen di leen kontaane bu baax a baax premier match bi nga xamante ne moom moo fi am si coupe d' afrique bi fii ñuy usine ñu andi seeg waa ITV le président ki nga xamante ne moom mooy président ñaari tali ñu naan ko monsieur Djibi Wade ah moom lañ fi àndal ñu fas yéene moom wax leen li nga xew si match bi président Djibi ñu ngi lay nuyu. waaw match boo xam ne ci condition yi ñu ko joué xam ne quand difficile parce loolu dafa xaw a metti mais nag ñu xam ne lii lu lii lu baax la ah. mu arrivé ñu léegi moo gën mu arrivé ñu ci fenn euh, championnat bi mais l' équipe quand même dans dans am na ay euh, correctifs yoo xam ne war nañ ko mën a indi mais en premier mi-temps gis nañ xam ne xaw na ne xale yi bëgg nañu ensuite démar gis nañu ñuy démarqué wu vraiment di utiliser espace yi di jéem a téye ballon di jéem a football bien que euh, Zimbabwe yi dañu dañu indiwoon benn bloc bas te en général Sénégal boo ñu indilee bloc bas dañ ko duñ ko mën a résoudre mais tey boo xoolee premier mi-temps bloc bas bi gars indi ñun résoudre nañ ko mais nag dañoo manqué ay occasion waaw premier mi-temps am na ñetti occasion yoo xam ne waroon nañu ko mën dugal bu ko dugal bu ko teeloon dugal liggéey mais deuxième mi nag quand même euh, bi ñu ñëwee quand peu compliqué ah parce que Sénégal dafa ñëw wàcc tuuti Zimbabwe di yëng nag di am confiance et yàlla def na nag quand même Aliou changé na ci diggante bi jóge ci 4-3-3 ñëw ci 4 ñëw ci 4-4-2 4-4-2 ba loolu nag changement leneen mooy leneen mooy jaaxal mooy Ibrahima Mbaye ak euh, Diao Boy la kay daal depuis un certain temps daal nekkuñu ci quoi loolu vraiment loolu moom ñëpp concerné nañu loolu quoi mais bu ñu nekkoon tey vraiment euh, doon nañu équipe bi doon na gën a mën a doon na mën a am apport. mais nag apport bi ñoom vraiment ils ont été quand même euh, dafa bu ñu rek euh, dina baax incha allah. gisoo tamit li nga xamante ne mooy tactique de jeu bi nga xamante Sénégal mi ngi ci woon ni nga waxee premier mi ak deuxième mi temps changement gis nga ko fi tey jii nii premier match bu demee nii est yeneen adversaires yi am est duñu ñemee. waaw mais tournoi tournoi boo xam ne boo koy démarré nga démarré ko ndànk moo gën quoi. et puis boo koy demee da ngay seet da ngay xool xam nga mais nga ko rek en pure séance léegi lu ñu ngeen di nag di ko dem dëgg par exemple contre contre contre match Guinée je veux voir parce que Guinée en général ils sont un bëgg naa Sénégal am ci répondant quoi loo fa loo fa am jël l'essentiel mooy da nga bañ a perdre match bi rek quoi léegi parce que match Guinée match test la pour bu ëllëgee bu ñu dajee Cameroun euh, nga xam ne ñoom ils ont un football physique bu ñu dajee Algérie nga xam dañ lay imposer un un football physique nga xool na ngay répondre donc c'est un très bi. merci beaucoup ba tey ñu si match Zimbabwe euh, Sénégal bi gis nga xamante ne moo fi jotee xew ki ma na moom mooy Medoune président communauté supporteru NGB Medoune ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar Aba di la sant di leen gërëm di la nuyu di nuyu waa NGB yëpp. waaw di wax ne tey match trop nag parce que Sénégal Zimbabwe match yomb parce que système bu ñu njëkk a joué 4-4-2 bi bon changé nañ ko deux fois trois fois pour bi mais boo xoolee offensivement duñ surcharge si kaw Zimbabwe quoi bu ñuy attaqué su Zimbabwe yooyu ñu ëpp foofu te bu ñu attaqué dañ fa parce que am na match yoo xamante da nga ñëw dugal ko bii après taxawaat euh, tour de calcul yi moo ñu yóbbee balaa 94 minutes yàlla ñoo ñu na wute trop trop trop sax. waaw xaw na wute xaw na wute boo xoolee premier temps bi dix minutes waroon nañ foofu dugal bii parce que 10 minutes 15 minutes jëkkee dañoo bi carrément raté beaucoup d'occasion waroon foofu dugal bii quoi mais après ñu dem mujj équipe sans système bi tu war équipe sans système deux fois trois fois Aliou Cissé sans système bi franchement waroon na mën a ñu système boo xamante donc certes am na ay manquant am na ay joueurs yoo xam ay titulaires yoo tey on peut comprendre ça quoi mais équipe jours pour mën a def pas est tamit beneen adversaire yi nga xamante ne ñoom dajal ni ñuy joué tey ji est-ce que duñu bu ñu am woon penalty bi kon làmbaay day ñaaw waaw gis nga à la 94 mi la ñu koo xam te ñu nag Guinée di ñëw te Guinée ils sont durs pour ni bi bu ñu ko joué contre man man du ma si am confiance quoi foog ñu jéem bi ñu évolué ñu joué offensivement si kaw Sénégal warul taxaw benn équipe di calculer parce que ñoo on est favori coupe bi lañ war a jëli dëgg yaa waroon nañ ko mën a do score bi di ëpp na Guinée si yeneen match yi allah match yi ñëw ñu xool Sénégal fii nii match Sénégal bi wax dëgg yàlla Sénégal Guinée la fii la la premier ministre ñu tàqalu ko Guinée sinon bu demee comme ñu rek on s'en sortira pas quoi. merci